asalaamaaleykum asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum partout dans le monde tey nag maa ngi parc des princes xacha tey maa ngi parc des princes sa baay Diego mi ngi parc des princes <laughs> ton papa Diego alors on réveille pas un milliardaire qui dort xacha mooy wax loolu ok maa ngi koy nuyu di ko féliciter ci liggéey bu rafet bi muy def jantal boy plein de l'avenir plein de talent yàlla na la yàlla protéger protéger képp ku nekk 2STV sàmm ñu sargal ñu ñuy waajal nag weeru bi di ci dugg ci bisimilahi rahmaani rahim di ci génn bi bien sûr ci alhamdulilahi rabbil alamin di wax gars yi taxawaalu di wër kër yi di lekk tudd leen yàlla gars yi wër ay mbaxal mbaxalu puuj paaj mbaxalu taatu mbotee mbaxalu dëxi nag yooyu yëpp dama bëgg gars yi takk seen biir xam ne un mois yàggul ku blow onze mois buur bi asa wa jalla bu la ñaanee benn mois bi mën ngeen ko ko may muy naankatu sàngara bi muy tuxkatu yàmbaa bi muy sàcc bi muy agresseur bi muy dóorkatu kaba yi <laughs> kaba yi kaba ah ñooñu ñëpp daal muñ leen un mois yàggul dama bëgg a Macky nga tëj baar yëpp nañu tëj amul Almadi amul Nord Foire amul Diamaguène na baar yëpp tëj parce que dëkku l'islam la dëkku diine la waaw police bi commissaire de police yëpp maa ngi leen di alerte ni leen def patrouille tous les jours voilà na naankatu sàngara yi jaamu yàlla na tuxkatu yàmbaa yi jaamu yàlla très bien alors di bëgg ñëpp di safoo ñëpp di ñaanal ñëpp jaamu ñu leen le retour de Don Diego comme d'habitude le milliardaire saoudien noir ñëw tey di leen bëggee di féliciter tamit chrétiens yi nga xam ni vraiment ñu ngi génn ci ñoom seen weeru koor ñu woor 40 jours déggu leen ñuy soccu déggu leen ñuy dox di tëfli ñun ngal ñun jullit yi nañ buñ ñu gën a gore chrétiens yi kenn déggul oh koor gi dafa saf kenn déggul ñuy jàmbat mais ñun dinañu jàmbat dinañu tëfli dinañu soccu lu ne diñ ko def dinañ ko def ma dama tàyyi alo ñu dem xooli euh, Guigui Laye Sarr li mu woy ci Seigneur Jésus-Christ doomu Mariama bu sell boobu ñu koy ñaanal Jésus-Christ sa yàlla gën ko yokku leeram di euh, féliciter euh, chrétiens yi yàlla nangul leen seen ramadan vraiment ñun tamit mu des ñun musulmans yi nañ ko jaayante yàlla nangul ñu suñu <coughs> ramadan let's go ñu dem xooli Guigui Laye Sarr ba frères et sœurs, finis maintenant les jours de la passion. Suivons les pas du ressuscité afin d'obtenir la joie du royaume. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Itemisa es Alléluia, bonne fête de Pâques à tout le pays et que Dieu nous bénisse. m'écoute pas. Alléluia. Alléluia. c'est-à-dire Guigui merci à toi fa nga ko xëccee moo graaw fa nga xëccee Alléluia bi xam nga yéen boo leen di woy Alléluia Christ da ngeen di kontaan. ñun tamit bu ñuy way Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam comme ñoom Moustapha Mbaye dañuy kontaan parce que sang bu tedd ba ca Medina kenn du moom yéen tamit da ngeen di dem Rome ñun ñuy dem Makka ñu fusionné nag mu nekk benn Guigui Laye Sarr li nga def rafet na hommage à Jésus Christ ñu lay ñaanal alléluia di ñaanal sa yaay sa xarit di ñaanal toute ta famille di ñaanal Fa jego jabar jooju nga xam ni say rek lay def nga koy conseillé di ko teg ci yoon vraiment Guigui yàlla na say fan yàgg weeru koor gi bu ñu ko génnee comme bu ñu yéen génn ngeen sen weeru koor ñun ñu des suñu weeru koor vraiment dégg ñu leen ngeen tëfli dégg ñu leen ngeen jënd soccu dégg ñu leen ngeen jàmbat chrétiens yi jàmbatuñu billahi kenn xamul ni woor nañu te ñun un mois la ñu am déglu leen rek ba suba ngeen déglu jàmbat yi ak une semaine wala deux jours nga gis gars yi di wari mbaxal ah nee naa dóor katu kaas yi rek la leen dóor katu kaba yi dañu ko ti juin yi réglé leen koor gi un mois la yàggul bu jeexe ñu tegaat ka ci yéen ngeen tegaat ka ci man sama yoon new ci man de alhamdulilah musuma tux cigarette musuma naan sangara yàlla na ma yàlla gën a dolli sutura di ko may suñu xarit boobu nga xam ne vraiment mooy Thierno Ousmane Ka sëriñ bu mag mara bu waalo ladda guerre fële nga xam ne vraiment ñu gën ko xam ci Omar Jéeri Ka Omar Jéeri Ka may ma soow waay wala nga may ma nag waay wala nga may ma meew <laughs> Omar Diéry Ka ñu ngi lay ñaanal longue vie santé prospérité di la ñaanal de fan vraiment parce que yow euh, gis nañu ni ngay taxawoo diine l'islam ni ngay taxawoo néew di doole yi mënoon nga ni sëriñ laa rek jël sa alal mu yam ci yow mais yaa ngi distribuer di jàppale ñëpp di def social alors koor gi nag ñëw no ñii ñooy joxe exemple genre kilifa yi nga xam ne vraiment ñoom Thierno Omar Ka ñi nga xam ne vraiment waalo la da guerre fële kenn jooyul tul xiif ak mar voilà président Macky Sall don yi ngay joxe pour euh, sukaru koor yi na jaar yoon borom alal yi comme ñun suñu genre milliardaires yi nañ ko jaare la yoon neew di doole ñu dimbali leen ñi am ñu continuer di am ñi ñàkk ñu continuer bañ a ñàkk ñuy am parce que nañu fi jone parce que yàlla moo bëgg loolu inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa ahwalikum allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa sallam di ñaanal nag tafsir abdourahmane gueye ñu ngi pare lu day waar ci koor gi mook chérif euh, mamoun aydara chérif moom suma xarit la nante la yàlla xam na ni surtout yonanti boobu sama waay la sama xarit la ma ngi koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram ak tafsir Abdourahmane Gaye mu sell mu tedd boobu nga xam ni boo waxee ci yàlla nga jooy boo waxee ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nga jooy boo waxee ci diinal islam nga jooy ñaari jiyoo ñoom ñaar ñooñu jiyoo boobu yàlla na leen yàlla lafal cat alaji Njaay merew leen madame Njaay merew leen maram saar Sarr merew leen vraiment seen liggéey rafet na alors ñu xooli papa Thione Thione sekk nee naa leen dafa dëddu rek dafa làqu mais deewul parce que ay œuvre am ñu ngi fii bàyyi Wally Balago sekk bàyyi Moumi Dani bàyyi euh, Mouhamed suma xarit bàyyi Alioune sekk suma xarit bàyyi Aïcha Rasoul bàyyu Babacar maa ngi koy ñaanal bàyyu Lamine Naar taawu bàyyam ak ndeyam ak bàyyam ak a maamam Lamine Naar bi gëpp à toi may ñaanal Thione Seck yàlla gën a yokku leeram la mu way ci jaaga man loolu rek laa wax ci sama jabar faa jéego let's go ma soog a dugal sama invité. way bi dootul dañ way bi dootul fay vraiment bu ma buñ ko tegee rek jaaga sama xel day dem ci Fa Diego vraiment di ko ñaanal suma jabar jooj nga xam ni xëy na euh, di liggéey liggéey bu embarqué xëy rek dëndal ma chambre à nee na duma la xaar damay changer chambre à bi defal ma chambre à coucher vraiment bu un million ma ne ko nag mérité naa ko parce que vraiment lal bi sama lal la maa ciy bandee <laughs> alors mais inauguré ñu ko quoi dafa ko ñu inauguration bi di bëggee nag bu mu déggee Papa Thione rek di ci nuyu Wally Ballago Seck mi ngi fële ca Jidda mu ngi màkk xale boobu nga xam ni vraiment ñu ngi koy ñaanal ñëpp yërëm Wally mais yàlla dina ko teg loxo parce que xol bi yaatu na ah, di ñaanal soxna Aydara Fatfal Ballago tamit maa ngi koy ñaanal bu mu déggee Papa Thione Seck rek sama xel teg ci Fatfal Ballago lay dem ak ci Mbaye seen parce que Fatfal Ballago moo liggéey loolu moo moo moo wane amour boobu bëgg na Wally Seck na Wally Seck fu nekk ndaxte ballago ak baayam baayu waali la woon Thione Seck di ci nuyu ñëpp ñëpp ñëpp ñi nga xam ni vraiment ay fans club bu Waali Seck la ñu alors ñu dem xooli waa Jolof Art après dugal suma artiste bi nag ka ñu yegg si nañu alors ñu commencé liggéey bi yóbbu ma Jolof Art ci waa Jolof yi vraiment ñoom tamit ñuy def liggéey bu extraordinaire euh, ma big up leen rapidement et eh, Mor Mor Niang le manager général waaw maa ngi noonu ci biir allez ñu dem xooli gars yi Mor mu dugal suma artiste xooli Jolof Art Jolof Art ñu ngi en position

man rek doo ñàkk gisee amul woon tay du fi am yoon su xel nekkoon bay fàttali xalaat du fi am yoon su mineer ci luwul woon na mel lu fi am yoon soo tuggee man na mu la da nga sori ci mel banana banana noonu <laughs> vraiment. aha akasa waaw Jolof aar ñu ngi noonu gis ngeen ni ñu mënee way mélodie musicale bi te barewuñu cinq la ñu xaw ma quatre macha allah di leen nuyu di leen ñaan une très bonne continuation di nuyu le manager général euh, Mor Niang Mor Niang nga xam ne vraiment daaru Jolof la dëkk doomu daara boobu nga xam ni mi ngi jóg di jàppale artistes yi xale bu ndaw am plein d' avenir ci social yàlla na la ko yàlla fay di nuyu ministre Samba Ndiobène Ka big up à toi félicitations à toi Samba Diobène Ka rafetlu nañu sa liggéey waa Jolof Daara foofu moom sa ginnaaw ba ndang bu la neexee biijul monsieur le ministre biijul ba dabax day waaw parce que tant que kaba yaa ngi fi da ngay biiju <laughs> point e ah là bon di ko nuyu bu baax a baax Samba Diobène Ka di nuyu monsieur le maire Momar Ndiaye merci à toi monsieur le maire Momar Ndiaye di nuyu tamit euh, vraiment euh, la femme de vraiment Morña Euh, ñu koy wax vraiment Mama Diagne sëy sëy bu rafet vraiment ak suñu doom jooju nga xam ni mooy jegaan euh, waa ñu ngi lay ñaanal vraiment ak Lamine Gassama fàttew ñu la ah surveillance bu mag moo boobu comptabilité bu mag boobu Lamine Gassama merci à vous yen daal vraiment jàppale leen doomu jolof jàppale leen xale yooyu nga xam ne doomu daara lañu muy jolof aar ñu ngi def liggéey bu extraordinaire yal na leen ko yàlla fay Mor Niang big up à kontaan naa ci yow trop trop trop trop sama doom sama chéri caane gu caaci caane jëli nga suppu kaa kanja bi ok waaw damal de fa sinon faa da koy jaay su mu ni faa moom lu mu togg du des koor gi prévoir na ay jus restaurant chef Fa Diego ñu ngi préparer ay ndogu yu extraordinaire ay caakiri caakiri yi pare na ceeb yi nag bul sonn loolu sama jabar moo koy def ku ràcc jëmale sa kanam mu dëll parce que eh laxaat ñu ngi lay bëggee di bëggee Henri di bëggee may pa may pa point e ñu ngi lay bëggee bu baax a baax <laughs> attention lekka ba laxaat one love man waaw Mans ñu ngi bëggee bu baax a baax di bëggee toute la famille Mista alors Cheikh Tall maa ngi lay bëggee bu baax a baax big up toi maa ngi ñëw jantal boy welcome welcome welcome la nice lépp jàmm na mu naa la maa la jantal boy ma nuyoo askan yëpp ñu ngi lay xool waaw maa ngi nuyu ñëpp et eh, maa ngi ñëw di la remercier yow merci beaucoup di nuyu Fa Diego ah merci sama jabar sama xarit. di nuyu waa Sénégal yëpp. très bien. Euh, di nuyu fa ma jógee muy Pikine. Pikine tali bu mag wala tali bu bees. Pikine euh, tali ñetti mbaar Gunaas. ñetti mbaar Gunaas nan te nga. d' accord di remercier ñëpp ñi nga xamante ni. Mhm. ñoo ngi nekk ci commune Djiddah Thiaroye Kaw. très bien. Euh, di remercier sama famille Diawén. Mhm. di remercier sama papa. sama mhm. yaay sama tante Adji Rabe di remercier ñëpp. maa ngi nuyu monsieur le maire docteur Cheikh Dieng. mi nga xamante ni jàpp na ci invitation bi. di baalu kon bu ñuy jóg dugg maa ngi ñu wax ñu nga ñaanalal euh, sulaar yi naan ko du sàngara yi ñu arrêté d'accord toxatu yamba yi ñu arrêté door katu kaba yi d'accord waaw kaba ko door boo leen ba pare d'accord la patika di nuyu ñëpp di sant monsieur le maire mm-hmm. docteur Cheikh Dieng di nuyu Adjuma waaye sant lu mu la defal docteur Cheikh sama xarit la jàpp ci liggéey sama xarit la di nuyu Aljuma Diallo. Aljuma Diallo waaw di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni jàpp nañ si affaire très bien di remercier samay xarit. waaw ñi nga xamante ni ñoom lay àndal ci liggéey bi sama manager staff bi. di remercier Idi Payet Khadim di remercier Biram. c'est que foog nga waroon nag doo remercier kenn. d'accord d'accord voilà doo yàq sama émission maay booy ñëw na. <laughs> ana Mansi non Mansi dafa tardé ñëwagul alors. Euh, Kaaw nga dugg ci musique bi a ba ban âge. maa ngi ci dugg environ 2007. très bien yaa ngi doon jàng. fekk maa ngi jàng far Fatou Diop. ah. mais en même temps maa ngi doon def musique. très bien ma teel a dugg ci musique. Mhm. j'ai fait deux albums. Mhm, deux albums ban ak ban. yu nga xamante ni premier album bi maa ngi ko tuddee woon Asaka. Asaka waxal ca kaw Asaka. waaw kon yaa ngi joxe Asaka. d'accord waaw bu baax deuxième album bi maa ngi ko tuddee woon Hero of Tomorrow. Hero waaw mu nekkoon treize titres yu nga xamante ni def naa si ñetti clip vidéo ok sama clip première clip vidéo maa ngi ko tuddee woon Jida Caaroy Kaw. Jida Kaw. ma def ko ak monsieur le maire docteur Cheikh Dieng. très bien deuxième clip bi may wax si cokkeer muy la traite faite aux enfants. Mhm. troisième clip bi nag ma ànd ci sama papa. Mhm. sama xarit nga xam ne mhm. yàlla jëlee na ko fi ah. muy Doudou Yaye Katy Doudou Yaye Katy boobu nag la ñuy dem wane clip bi ngeen xool ak euh, hommage à lui mhm. ñu koy ñaanal vraiment yàlla yërëm ko te yéexee ñu parce que doon na ko doon nañu teral doon nañu bégal di di ko may Demba Demba Sanelak suma xarit mu ngi lay seetaan doomu ndey daaw Gueye ñu ngi ñuy seetaan fële ca euh, Derklé ah di koy tamit plan à Jaxaay 2 ña nga Almadi 2 Demba merci à toi nuyul ma daaw dëggee ñu ngi leen di bëgg bu baax a baax ñu dem xooli clip bi après ñëwaat yeggali waxtaan bi tëj ko rapidement sàmba yaa ne ngaan njaay doole yi bëre guy gi na cant ak ngërëm ñi xus ci digg àll bi jàll ba muy lëndëm ak doole doole day jeex sunu champion lañu du néew fexe yee li nelaw ci yow bëre leen noonu ngañ demba woli mata mhm. te yàggalit galis na ngañ demba ak wali atureer na atureer na atureer na ngay demba fatimata atu feeñ na waaw très bien ko inspiré e way bi adama ba ca Paris ma doon jéego yaa ñu toj te émission bi Henri nee na ma doon jéego yaa ñu toj émission bi mm-hmm. laxaat nee na ma doon jéego yaa ñu toj émission bi famille Ndiougo Kébé Jili Mbay waa Louga Mbay Tafa Touré Xaadim euh, Mbay Maretu Mbay ñëpp maa ngi leen di bëggee mm-hmm. waaw ma ana maay pa attention kaba yi attention doj yi attention kaba yi jëli nga suppu kànja bi caane dem na ana caane caane suppu kànja bi dama jëli ko très bien. bi ñu demee studio. Mhm. toog waxtaan ma ne ko man dama bëgg ñu def son. Mhm. paa bi ci boppam yi mu ne ma ci lan ma ne ko nañ way làmb mhm. nañ delloo njukkal làmb fekk nga ko ci mëninam waaw fekk fo lii nag muy bit bi instrumental bu garaaw bi dafa garaaw moom moo njëkk a dugal parteem allah moom moo ma inspiré yee donc ma koy ñaanal ndeysaan waaw yàlla petit mbay moo xamoon valeur am yàlla xaare ko àjjana amiin parce que ñu ngi nuyu grand petit mbay action 2000 petit mbay du ma ko mës a fàtte parce que dafa taral mbër mhm. taral musicien mhm. mais nag euh, lamb ji mu way mhm. euh, Eumeu Sène ak Lac de Guiers gars yi mere nañ leen baadoolo weesuwul supporters yi nekkoon ci stade bu bees bi arène ba di di di buddi fa euh, chaise loolu rafet na wala rafetul. non non rafetul. loolu ah? dama koy ñaawlu. non ay baadoola la ñu waay sama bat ca kaw ma xool kan moo may dogaale baadoola yi ngeen doon yéen jaru leen jur sax ah lii ñu defar ñu ñu ñu nekkoon ci Covid sonn bay bëgg a dee. Mm-hmm. ñu ubbi affaire ya ngeen war a remercier président ak ministre des sports Matar Ba. Mm-hmm. ngeen dem stade ñi mbëri bu ñu bëreewul stade bi yoonam nekku ci. Mm-hmm. boo leen meree ngeen taxaw saaga def lu leen neex mais bu leen yàq. suñu alal la. suñu alal la ñoo ko moom quoi. yee yee. waaw alors looy tàggoo ak looy wax pour projet yi. coronavirus bi moo taxoon parce que man man ji ñëw na. waaw gis nga dafa tardé ñëw na mi ngi ne rek. voilà coronavirus bi moo taxoon ñu teg affaire yëpp ci suuf. waaw corona bi wàññee na ko. waaw couvre wàññeeku na. Oh. donc moo tax ñu waat affaire yi. am na son nga xam ne day disponible tey. incha allah ci plateforme yëpp à partir de vingt heures. après Korité da ngay ñëwaat. dañuy ñëwaat. Ah. tëgg live <laughs> tëgg live orchestre. bien <laughs> télé bi. <laughs> alors looy tàggoo mot de ma lay remercier waat. merci beaucoup di la sant di la gërëm. Mm-hmm. di nuyu 2STV ñi fi nekk ñëpp. amiin di nuyu kilifa gi El Hadj Ndiaye. allahu akbar papa kaw ba ci suuf di nuyu. waaw kontaan naa la voilà ak madame Ndiaye ci koor gi. di nuyu waat waa Pikine. ji da caaree kaw mm-hmm. fàttewuma kenn ñi may àndal guddeeg bëccëg suba ngoon uh-huh. mooy ñi ma doon limal sàng wallaay bu ko limaat de parce que ji ma ñëw ndey waaw maa ngi leen di nuyu di leen sant ñoom ñëpp alhamdulilah rabbil alamin fat fat bala ko bëggee naa la big up à toi doom la ci Thione Seck xarit la ci Thione Seck yaay la ci Wally Seck lépp la ci Wally Seck moom bu déggee son Thione day moo ma leen deewul mhm. yéen les artistes doo leen dee moom tamit ñu koy ñaanal yàlla xaare ko da koy xaare àjjana parce que quarantième jour am ci weeru koor la tombeel Thione nay lakk yu bëri tegal ma beneen clip mu dugal euh, manti manti ñëw na waxal gaaw balaa ñu teg clip waaw <laughs> La Fatica vive ndeke kenn mënalul boppam tuus wërsëg la ñaan wala gën bon la wala bët bu toddu ruus nit comme garab yàgg-yàgg day ruus bañ a xaati taay yi dëkk ci puus xool day woote pourtant dëkk ci guus mën a nekk bés ñëw mu gën a suus yàlla foofu la nekk wala fii ci kaw lu tax foofu di nees fii mënul taw lu tax ñoom ñuy avancé ñun ñu dellu ginnaaw all is will thanks go explain it to me we are the wing and the enemies mind yaa business yàlla baax na yàlla yaana yàlla bay sa tool xanaa danga gaana yàllaay bay sa tool xanaa danga gaana kii wax ma koy gëm leer sàngoo lëndëm nit lekk si jëmmam yaay jooy na doomam fii wax ma koy gëm leer sàngoo lëndëm nit lekk si jëmmam yaakaar bu tas yaakaar bu tas ngeen di flow ñuy xalaat la ñuy dunde ngeen di paato ñuy xaar ku ñuy gunge ngeen di wax rek ba léegi dara doxul dañoo muñ ba sonn pexe amul Sénégal neex na wax ko waa nguur gi ñun bu ñu añee du ñu reer féexal suñu laaj ci dund bu éphémère durée de vie bi di gën di wàcc yéen ñeme ngeen a dee ci géej gi te waroon a wàcc si mbedd mi ndox day rey tàkk tàkk bu dul fay yeneen néeg la kuy jëf lu lay rey sama yoon ci kenn bu dee man doo dégg kaay sama yoon ci kenn bu dee man doo dégg kaay all is with checks make any enemies man I want a yàlla baax na yàlla gaana yàlla bay sa tool xanaa danga gaana yàlla bay sa tool xanaa danga gaana di wax ma koy gëm leer sàngoo lëndëm nit lekk si jëmmam yaay jooy na doomam di wax ma koy gëm leer sàngoo lëndëm nit lekk si jëmmam yaakaar bu tas yaakaar bu tas Anji mi ngi noonu vraiment di ko may Momar Momar mi ngi Paris sama xarit la Momar Sagalo mi ngi Paris waroon ñëw Sénégal mais Covid bi moo ko téye di nuyu Adama moom it mi ngi Paris Fat Fall Balago mi ngi vraiment di nuyu Boy Gilles Boy Gilles jantal boy l'américain warrior jaar euh, Gambie jaar Nigéria jaar Casamance jaar euh, euh, Ghana jaar Bénin félicitations sa manager mi ngi ñëw bu yegsee ñu ñu ñu yaatal waxtaan bi bu wul man ma yaatal ko après yow laay teg léegi di bëggee Souleymane fan si club bu Wally Ballago Seck Souleymane maa ngi lay bëggee di bëggee tamit vraiment euh, UB UB Ibrahima l'homme de Genève l'homme de Luxembourg di bëggee Awa Kermel Awa Kermel big up à toi félicitations à toi ñu ngi lay ñaan une très continuation jigéen ju mën mi ngi ci défilé yi mi ngi ci vraiment artisanal yi mi ngi ci liggéey bu extraordinaire mi ngi fashion en même temps salut merci Aïcha Tall leen di béggee bu baax a baax a baax man ci man ci bandi nga de yow mii nante nga boy maa doon doon ay caba <laughs> ndeysaan très correct gentle boy plein de l'avenir moom laa leen indil tey pour ñun déglu boy bi ba bàyyi la nuyoo yes yes yes ñu ngi siyaar xam nga everybody ñëpp ñu seetaan xam di nuyu waa kër gi 2STV fii moom suñu gàlle la mooy loolu noonu du c'est pas la première fois ñuy teew fii nii xam nga di la char yow xam nga le milliardaire xam nga Saoudien noir mooy loolu noonu waaw ñu ngi lay char la bëggee xam nga bëggee ñi seetaan ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp senegal Sénégal yëpp ñu ngi leen char leen bëggee xam di leen baal àq di leen baalu mhm. àq xam nga ci koor gi ñu dëgmal nii xam nga ñaan yàlla ñu dugg ci yegg bismillahi rahmaani rahim yegg genn ci alhamdulilah waaw mooy loolu noonu di siyaar sama copain ma àndal El Hadj xam nga El Hadj jantal gars yi seetaan yëpp waaw mooy loolu big up à toi alors man si ma déggoon la ci game bi di la dégg di la dégg jékki-jékki déggatuma la lu waral loolu waaw bon xam nga loo gis tamit reculer pour mieux sauter da cee baax quoi benn instant xam nga parce que yàgg nañ ci ñu ngi joob mhm. li ñu joob dëgg la sax ñu ngi gis résultat yi mais à un moment donné hmm. fokk nga def benn genre pause xam nga xoolaat bagage yi quoi. Mhm. entourage beeg parce que loolu yëpp la quoi parce que musique bi loolu yëpp la ëmb staff beeg yooyu yëpp da ci am solo quoi. Mhm. depuis tout ce temps ci loolu nekkoon di ko xoolaat di ko réglé waat. Mhm. instant bi ñëwaat nañ. te amul bàyyi quoi dañ ko ci tegaat te bu ci xam na lépp dëgg la quoi. non non ren ñoo ko moom ren ah? ñoo na. non gëm naa booy bi man ci man di foog ngay door ay kaba nag. non foog ngay laal ay daj baay <laughs> man di from fan. from ñaari tali ah waaw. ñaari ah, tali nga ñaari mën a dëkk. amoon naa boy benn tali ñoom yoro jeey ah, sama boy yooyu. Cheikh Fall nekk États-Unis sama boy yooyu Bira. jantal boy parce que HLM 2 laa dëkkoon. HLM 2 euh, ma jëy Sall waaw daan football boole ji. nawetaan HLM 5. foofu saayit bi la di sama xarit waaw ñoo doon di bëggee ñëpp. alors man ci clip bi nga inspiré wu ko ab euh, euh, clip bi jàll léegi. waaw noo ko tuddee. clip bi yaakaar bu tas. parce que yaakaar bu tas lu waral yaakaar bu tas. yaakaar bu tas ça parle bon li xew ci dëkk bi. quoi mhm. actuellement nii. vraie actualité la def. mën nañ ne mën nañ ko résumer sax ci jamono jii rek li passé ci ci ci ci diggante. affaire coowal Sonko ak Adji Sarr. xam nga loolu rek mën na résumer loolu. gars yi bi ñu génnee. Mhm. gis nañ beneen affaire nekkate sax nekkate Sénégal sax gars am na leneen lu leen gën a metti sax lu bokkul ak loolu loo xamante ne tey jii li occasion la benn coup de pouce la bu mu leen may rek bu génn wanewaale ko quoi parce que benn instant bu ñu falee tamit xam hmm. président hmm. pour mu mu joob hmm. warul demee nii quoi saa su ne dafa yàgg ay ati at. ñuy dégg ñuy dégg liggéey liggéey mooy loolu quoi liggéey liggéey xam nga affaire bi wul quoi. Hmm. moo tax ma ne yaakaar bu tas xam nga di ex loolu lay bi en résumé. Hmm. parce que da ngay gis benn gaayen bu dem génn uti ji ñëw. Hmm. affaire yi dëgër ak mbëkk mi soxna si di ko dalal waa mbëkk mi xam nga mais mbëkk mi tamit mooy loolu. mën na pour man gars yi dem di mbëkk ji noonu. ñoom dañuy xaru nag. dañuy xaru nag quoi mais nañ toog rek yi taxaw autorité yi nga ne ñoom lañ eh. fal ñu lijjanti ko. merci beaucoup waaw mais loolu la quoi. def leen loolu yéen bu ñu leen soxlee ak Momar Ndiaye maire dañu war a recevoir askan wi ministre yi dëkk ci gox bi ñu dëkk dañu war a di dimbali parce que ñoom ñëpp am nañu caisse noire loolu ni boobu te seen doom yëpp a ngi ci kaw di jàng lu tax loolu man du a mhm. mhm. leen li nga xamante ne moom mooy raaj bi ñoon ñoo jël gaal gi di dem bàyyi leen ak mhm. la moom gaal gi moom ñu koy jël moom ànduma ci waaw léegi financement bi président wax ni dina génn ay milliards et des milliards. man je pense que dañu war a fonder ay association wala ñu créer ay cellules yoo xam ni ah dinañ leen mën a euh, lebal financement ñu liggéey mais bu ñu euh, nan nga yaakaare xaalis boobu. ci sa gis-gis xaalis bi. parce que yàgg nañ dégg ay financement te duñ ko gis. financement yi moom. Ah. pour man weesuwul ludul nga jéem a créer ay emploi yoo xamante ni mhm. nit yi dañ ko mën a liggéey ñëpp gis ci seen bopp nit ñi jàng métier aussi jàng métier quoi mais ñu former leen parce que tamit xale ñu mhm. tasaare ko séddale ko ñuy jël aw nii ñuy jël aw nee mais loolu amul sens quoi bu fekkee ne mhm. loolu moom jaru ko sax <laughs> loolu def nañ ko fi defati ko fi ay année gisuñu benn changement xam alors looy conseiller gars yi jeunesse bi nii nii waaw jeunesse bi mooy mooy mooy mooy ñu gën rek. gën a taxaw ba xam ne temps euh, réew mi instant yi fu mu toll nii. Mhm. ñun jeunesse bi ñun ñoo ko mën a changer. tout à fait a taxaw ne mhm. les politiques. Mhm. fii lañ bëgg ngeen tegal ñu réew mi ku ko si mën nga ñëw. ku ko si mënul nga dem toog fee. très bien parce que politique tamit yomb na. wax la rek di wër di wax li ngay wax sax daanaka doon métier lañ ko def sax. parce que boo après dootuñu la déggaat dootuñu la gisaat sama benn grand <laughs> ndeysaan guy mbind maa ngi koy xaar moom borom moo ko am daf may wax politiciens yi xam nga ah. li ñuy def duñ ko wax li ñuy hmm. wax duñ ko def te ñoom ñëpp ay gaayen lañu dañuy gisee night time waaw loolu maa ngi koy bëggee au passage très bien guy mbindes ah oh, guy mbindes mi ngi noonu muy Manji vraiment nekk xale bu am xel nag xale bu am xel Manji lu la dugal ci sound révolutionnaire nga wala da nga am euh, feeling def musique wala danga nga ko jàng wala da nga ko donnu bon mun naa ne xam nga loo da ñoo màgg ci loolu ko en fait parce que ñun boo gisee secteur bi ñu dëkk ñaari tali Grand Dakar. Mhm. ci ci atmosphère boobu lañ màgg quoi dañoo nekk ay booy di gis ay Karim. sama benn booy mi ay ba. Karim jamonoy Rapadio bi. Rapadio ci loolu lañ màgg quoi daan gis ay pifras di dem di leen seetaani. pifras di voile d'or ci loolu lañ màgg quoi ambiance boobu lañ màgg ñun bu ñu bu ñu bu ñu ximilikoo rek loolu lañ njëkk a gis. Mhm. moo tax après automatiquement dafa ñëw ko nekkul loo xam ne dañ ko jàng wala dara mhm. automatiquement la lu ñëw mhm. mais aussi tamit mu nekk loo xamante ne daf ñoo daf ñoo dafa ressembler suñu identité parce que ñun ku ñu xool xam ne ay bañkat lañu mhm. mosuñu bëgg lu yomb na ko dégg nga maa ngi lay tooñ naan la bandi ah. ah, tamit sa génération ñi nga bokkal génération da leen yërëm ñi toog defuñu dara da nga yërëm mhm. parce que déjà gis naa léegi ci gaal gi ñuy dem àndoo ci da nga bëggoon gars yi taxaw Sénégal dëggal seen bopp yaafal sa maire quartier nu mu tudd maire bi maire bi Touré Sa Niass moo fa nekkoon de moom wàcc na liggéey. kiñ fa nekk ko waxee de xam naa sawaroo ci maire bi. waaw mi ngi recevoir askan mi ngi dimbali maire yi paa yi. troisième âge yi maire yi comme Samba Diobène Ka ni muy def. vraiment di dimbali troisième âge yi suñu maam yi. suñu yaay yi feebar AVC paralysé. mais ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu maire bi. munoo ne ma li lañ fay liggéey loo xam ne dañu war a daggal ñoom salaire chaque mois ñooñu nga xam ni suñuy maam lañu damatuñu waaw chaque mois ñu am sax benn cent mille maire yi mën nañ ko maire de commune yi mën nañ ko maire de la ville yi mën nañ ko ay ceeb la leen di séddale tasaare ko yooyu noonu ceeb dawlin léeg-léeg du am sax tamaate waaw gis nga yaay jënd tamaate ceeb beeg dawlin duñ ci teg sax benn tanta wala dañu sonn si ceeb bi dañu sonn si ceeb beeg macaroni bi dañu sonn si ceeb bi dañu jox yàpp dañu ay suppu kànja surtout les kabo da leen jox ay doj. da leen di looy wax gars yi nag looy wax. gars yi ñu ngi ñu ngi bàyyi maay bëggee ñëpp. xam nga eh, attends attends attends booy. kilibam buy dem bu tàggoo kilibam bi ngay continuer la <laughs> temps nga may tegal booy Gilles. ok waaw ñu ngi bëggee ñëpp xam nga mooy loolu noonu gars yi di leen wax ne peut temps depuis tout ce temps boo leen gisee ñu toogoon ci benn ruq dafa am lu ñu doon préparé mhm. instant bii nii mun naa ne lépp yemb na mhm. xëy na koor gi la xaar bu jàll mhm. ñu bàcc ko benn par benn ah! te bu ñëwee rek gars yi dinañ xam ne xam nga mooy loolu noo quoi niveau yi bokkul te et tamit xam nga rek lu ñu yàgg gëstu am ci expérience xam fi ñu jaar instant bi dañuy ñëw rek appliqué <laughs> maa ngi bëggee noonu xam nga di bëggee ci job bi xam ak gars yëpp noonu jantal grade yow maa lay foog ngay door ay kabon baay waaw gis nga xam loolu mënul yàgg mën na ñaari tali la de man boo yi la gëm parce que d'après li mu fi wax dal na xel te waxee na jom ak fulla ak fayda xale la mais nee li ko inspiré ci mooy ñoom Pip Froiss ña fi jaaroon ah PBS daara ji gars nga xam ni Fata maa ngi leen di bëggee nongo di Fada Freddy suma jantal boy lañu maa ngi leen di bëggee di leen wax euh, une très bonne coordination ñaari tali bare na ay ñu am talent Abdou Niang mi ngi fa rakku Mouhamed Niang bu Serigne Saliou bu Cheikh Béthio euh, Boy Jimen mi ngi fa nante yaa ngi fa tu vois donc ñii li ñuy wax ci musique ñoom tru tru xew ñu ñoom dañuy wax li ñuy dund ak li ñuy li xew ci actualité booy bi loolu la way moo tax mu ni son bi nu mu tuddati yaakaar bu tas yaakaar bu tas yàlla bu suñu yaakaar tas ñu ngi dugg ci mm-hmm. koor gi bisimilahi rahmaani rahim terminé ak alhamdulilahi rabbil alamin booy jiimeen continuel ma kilibam euh, bi jiimeen tagal ma kilibam bi kilibam bi bu jeexee nga jàmmo boy Jules maintenant boy Jules mi ngi dugg si bientôt alors big waaw mi ñu ngi bëgg ab ñëpp eh, milkman daf record jëlal yow lépp yaay borom. Eh, <laughs> jantal booy ji meen yàlla ko eh. yàlla may gudd fan ak wér gi yaram yàlla gën a neexal xelam. parce que xale la mais man euh, euh, man personnellement sopp naa ko ak El ton son ami ton ménager c'est El Hadj ah. waaw El Hadj jantal booy la moom tamit nee na ma jiimeen bu taxawee ci plateau bi rek nga xam ne jiimeen la après koor gi da ngay ñëwaat ñu def benn live ngay indi ñu def live parce que damay def live indi bande bi jooy waaw indi bande yi waay loolu yëpp mën a nekk voilà jeex na alors bi nga booy tagal ma jiimeen mu continuer en attendant ñu dugal booy fil ndeke kenn mënul boppam tuus wërsëg la ñaan wala gën a muus man la wala bët bu toddu ruus nit comme garab yàgg-yàgg day ruus ba xaati taay yi dëkk ci puus xool day wow te pourtant dëkk ci guus mën a nekk bés ñëw mu gën a suus yàlla foofu la nekk wala fii ci kaw lu tax foofu di nees fii munul taw lu tax ñoom ñuy avancé ñun ñu dellu ginnaaw all Israel thanks go explain it to me we are the wing and the enemies mind yaa wana business yàlla baax na yàlla yaana yàlla bay sa tool xanaa danga yàllaay bay sa tool xanaa danga gaana lii wax ma koy gëm leer sàngoo lëndëm nit lekk si jëmmam yaay jooy na doomam lii wax ma koy gëm leer sàngoo lëndëm nit lekk si jëmmam yaakaar bu tas yaakaar bu tas ngeen di ñuy xalaat la dunde ngeen paato ñuy xaar ku ñuy gunge ngeen wax rek ba léegi dara doxul dañoo muñ ba sonn pexe amul Sénégal neex na wax ko waa nguur gi ñun bu ñu añee du ñu reer féexal suñu laaj ci dund bu éphémère durée de vie bi di gën di wàcc yéen ñeme ngeen a dee ci géej te pourtant waroon a wàcc ci mbedd mi ndox day rey tàkk tàkk bu dul fay yeneen néeg la kuy jëf lu lay rey sama yoon ci kenn bu lee man loo dégg kaay sama yoon ci kenn bu dee man doo dégg all is with tax God explain it to me we are the weak and enemies man I want a business yàlla baax na yàlla gaana yàlla bay sa tool xanaa danga gaana yàlla wax ma koy gëm leer sàngoo lëndëm nit lekk si jëmmam yaay jooy doomam lii wax ma koy gëm leer sàngoo lëndëm nit lekk si jëmmam yaakaar bu tas yaakaar bu tas mi ngi noonu vraiment di nuyu waa Richard Toll yëpp ñu ngay bëggee Amadou Sarr ñu ngi lay bëggee bu baax a baax di nuyu ay Sarr Diop sa jabar bi nga xamante ni moom nga bëgg mu bëgg la yéen a koy joxante merci euh, ma chérie ñu ngi lay bëggee bu baax a baax di nuyu grand dédicace chérie Assad Diop booy Assad Diop rek nga nopp Amadou ñu ngi lay euh, ñaanal tamit vraiment lang googu sotti lang googu ngeen am ci ay doom yu barkeel du nuyu Demba gu ci suma xarit la di nuyu Laxaat ah Henri maa ngi lay bëggee Laxaat maa ngi lay bëggee bu baax a baax ñu xooli Boy Jules moom lay tëjee Boy Jules plein de l'avenir euh, di jarbaat Jules Junior vraiment mu bëggoon tey euh, Boubacar Diallo il faut nga am studio boo Jules Junior ci sa i rajo ah loolu c'est très important parce que démb la woon yéen ñaar voilà di ñaanal Jules Junior yàlla xale bu aljana te yéex a ñëw ñu xool ñu xool jarbaatu Jules Junior Boy Jules. I wasn't dead, selling weed, selling crack, yo. That wasn't dead, my album I done That wasn't dead, if you lying, nigga, stop that. That wasn't dead, hip hop dead, I'ma bring it back. That that wasn't, dead. That wasn't, June. That wasn't me, that wasn't B. Nah, label on high level. I tell you what I know.

yo. That wasn't